min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala mbokk jàmm jàmm ak jamono di ñëw ci seen waxtaan Sénégal moo ma yóbbante tey nag jàmm jàmm ak jamono fas yéene def benn direct benn live gëj nañ ko def sax pratiquement bàyyi woon nañ ko dañ doon def euh, vidéo sur euh, WhatsApp après partager ko sur Facebook waaye tey dañu fas yéene def live ah lu tax ñu fas yéene ko def nag mooy tey Sénégal daf ñu yóbbanti ci benn mbir moo xam ne mbir mu doy waar mbir moo xam ne jarta xeeb muy affaire Ousmane Sonko ak euh, soxna soo suñuy wax aji Sarr ñu gis ne vraiment actuellement Sénégal yëpp ñu ngi koy waxtaanee comme nu ma koy waxee rek à chaque fois rek vraiment dañuy yóbbu ci ay distraction yoo xam ne dañuy dañuy fàtte sax li nga xam ne moom mooy Covid 19 bi lëmbee Sénégal lëmbee àdduna te ñëpp vraiment tiit ci lool donc distraction boobu nag euh, mënul ñàkk ndax euh, ñun Sénégal ñun ñoo bindoo noonu ñoo mel noonu lépp lu ñëw rek dañuy këf yóbbuñu. waaye li nga xam ne tey mooy affaire Ousmane Sonko du affaire bu spectaculaire du lu extraordinaire aussi mais mbir la boo xam ne tey sénégalais bu nekk war nga taxaw nga tiit war nga tiit moo xam ngay kilifa diine moo xam mbooloo boo mën a jiite moo xam ngay président moo xam ngay premier ministre walla ngay député maanaam képp koo xam ne njiit nga. nga am tur vraiment am ay ambition yu yu rëy yu kawe war nga mun a tiit tey xam ne bu fekkee Sénégal nii lay demee vraiment yow mucco ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla nañu yàlla suturaal yàlla nañu yàlla dolli sutura donc li nga xam ne mooy affaire Ousmane Sonko bi nag dañuy ñëw rek ci analyse bu ndaw lu jiitu analyse bi sax dinañ fàttali rek vidéo yu ñu fi defoon fan yi paase bay wax ci ne vraiment Sénégal war nañ egg ci démocratie boo xamante ne nit bu bëggee wax du ragal a wax parce que dañ ko xoqatal nit bu bëggee wax du ñemee wax parce que dafa am koo xamante ne ci moom la yaakaar wërsëgam donc je pense que loolu war nañ ko dépasser bu yàgg a yàgg yàgg yàgg li nga xam ne nag moo xaw ci tey Ousmane Sonko balaa ñuy def dugg ci benn analyse ki ñuy njëkk a xool mooy kan mooy Ousmane Sonko lan lañ ko xamal lan mooy parcours am lan mooy jaar-jaaram ñan ñooy ay xaritam ñan ñooy ay noonam ñan ñooy ay partenaire am ñan ñooy ay adversaire am donc point yooyu yëpp fokk ñu indi ko teg avant ñuy analyser li nga xamante ne moom mooy coowu Ousmane Sonko ak soxna si ñuy wax aji Sarr donc dañuy analyser nag dugguñ ci Ousmane Sonko moo def wala defut wala diw a def wala diw defut mais nag tiit nañ lool ah tiit nañ parce que nag bu fekkee ne citoyen sénégalais sénégalais lañ ñu bëgg Sénégal am ay ambition ci Sénégal bu fekkee ne dem nañ ba léegi ñu toll si ku jóg rekk wax lu la neex walla tuumaal ku la neex walla dugal ku la neex walla piéger ku la neex su boobaa dafay doy waar gars yi du ñu yàlla du ñu yonent te du ñu jinne it du ñu yàlla du ñu yonent te du ñu jinne ku nekk na ñaan yàlla suturaal ko parce que réew mi ni muy demee ni maa ngi ko doon wax réew moo xam ne yegg nañ ci uññante sutura saaga wante lorante yàqante toroxalante ah réew bu yàggee foofu yeggee foofu de dina doy waar trop Sénégal nag dañu am tendance di tëqale sunu bopp ak réewu tubaab yeeg yooyu buleen mel ni tubaab yi bu leen mel ni tubaab yi gars nañ ñaan yàlla mel ni tubaab yi ci jikko nañu ñaan yàlla mel ni tubaab yi ci jikko yaay bu ñu naxante nañ waxante dëgg yéen ñi nekk ci internet yi ci internet bi nekk ci réseaux sociaux yi xawma TikTok Instagram Facebook WhatsApp li may wax yéen a ma ko gën a xam fuuf nañ bàyyi dof-doflu bi bàyyi naxante bi bàyyi nax suñu bopp di foye suñu xel wax dëgg yàlla tànk bi nga xam ne ñun sénégalais yi moom lañ jël baaxut baaxut ñu ngi yàq réew mi te réew mi képp ko jàpp ne yaa ngi koy foye xam ne yaa ngi foye sa bopp yaa ngi foye sa ndaw te li ma gis nag muy xew ay ndaw rek ñoo koy def mais dafa mel ni ndaw yooyu ñoom duñ toog benn waxtu wala benn instant xalaat na ñoom dinañ mës a nekk mag wala dinañ mës a màgget wala dinañ mës a tële ay ndaw yoo xam ne tooguñu xalaat seen yaay seen yaay bi fi nekkoon seen yaay jaar na fi ñu jaar tolloon na ni ñu toll seen maam jaar na fi ñu jaar tolloon na ni ñu toll mais est-ce que tey seen maam bu taxawoo woon tànk yooyu tey est-ce que ñoom tey dinañ mën a taxaw taxawaay bi ñuy taxaw tey fekkoon seen ndey ci lii ngeen nekk si lañ nekk est-ce que tey di ngeen mën a di ngeen mën a def li gars yi ndawu Sénégal la jeunesse sénégalaise yéen ñu nekk ci réseau sociaux yi vraiment ngir ngir yàlla bu fekkee ne ñun tële nañ ba mënuñoo baax bu fekkee tële nañ ba mënuñoo baax ngël la vraiment ñu suturaal suñu bopp suturaal suñu morom parce que nag bu fekkee dañu dem ba léegi nit day def lu bonam nëbbu ko ku mel ni man jël ko ko di ko ko partagel yow mbon moo xam ne sa yoon newu ci yow defoo defaanoo ngay partager pour lan pour taqal sa bopp yokk sa bopp bàkkaar yow di nga dem ba sax ki def mbir ma sax yaa koy ëpp bàkkaar ndax partager bi nga koy partager ku nekk si jot si bu dee lu bon nga jël ko wane ko wala nga siiwal ko mais yaa ki def lu bon yéen a yem kuy def lu bon ak kuy siiwal mbon ñoo yem kuy def lu bon ak kuy siiwal bon ñoo yem te dara gënul bon dara gënul yées kuy jéem a toroxal nit ngay jéem a toroxal doomu aadama dara jaru ko li la koy defloo mooy xaalis boo xamante ne yow wóoru la sax danga ca jot wala boo ko jotee est-ce que di nga ko jëriñoo waaye nañu xoolaat sunu bopp bu baax a baax dama ne tey képp koo xam ne yaa ngi Sénégal ngay kilifa war nga mun a tiit a ah, lii de moom bu yaboo ñi nga xam ne ñooy les autorités sénégalaises nañu jël seeni responsabilité nañu jéem a dakkal lii parce que lii warul nekk wëy warul nekk lu banaan loo xamante ne xale yi jigéen ñi wala xale yi góor yi dañ koy jël def ko fawukaay parce que nag si lañuy ñuy commencé di tenter nit ñi si seen ay sentiment si seen ay bëgg-bëgg ba pare di leen di toroxal pour jaay leen pour uñu seen sutura gars lii dafa ñaaw xaalis jaru ko nguur jaru ko dara jaru ko ci àdduna ku toroxal benn doomu aadama xamal ne toroxal nga humanité bi yépp bon ku ci mel ni Ousmane Sonko nag bon espoir u sénégalais yépp la vraiment euh, Macky Sall c'est le président de la République du Sénégal ñu koy wàccee wàccuwaayam mais ëllëg Macky Sall mën na fi jóge te Sénégal vraiment soxla na ay ndaw yu mel ni Ousmane Sonko comme lu may wax rek Sénégal nañ ñu foog nañ ñu sàmmal sunu ndaw yi nañ ñu sàmmal sunu leader yi parce que réew pour mu dox pour mu avancé foog mu am ay leader te amul sikk ne Ousmane Sonko ak ñu mel ni ñoom wane nañ ne ay leader lañ wane nañ ne war nañ mun a taxaw. jiite Sénégal diriger ko kon gars yi ñun loolu Sénégal loolu rek la am sunu humain boobu vraiment nañ ñu ci dimbale sàmmal ñu ko ndaw si def lii nag wax li mu wax donc duñ ci sori parce que comme Ousmane Sonko nee na moom gisul plainte donc wax la rek ju ñuy wax ni mais wax jooju aussi vraiment sa dérange du lu rafet du lu rafet te ñu ngi koy ñaawlu. du lu rafet te ñu ngi koy ñaawlu bu fekkee ne ndaw si def li tey ak lu mu mën ci jublu déjà moom mu ngi mettre vie en danger mu ngi yàq àddunaam parce que consciencieusement xelam tey bu tëddee du nelaw fi mu nekk tey peut-être am nañu tiit mais moom kenn gënu koo tiit kenn gënu koo tiit parce que bu leen fàtte ne Ousmane Sonko am na ay mbokk. Ousmane Sonko am na ay soppe usmaan Sonko am na lu nekk ci ginnaawam ñoo xam ne bëgg nañ ko sopp nañ ko te bu fekkee pexe la bu ñu teg pour daane Ousmane Sonko mais am na ñoo xam ne tey pare nañ pour def yeneen pexe ba képp koo xam ne jóg nga pour toroxal usmaan Sonko wala nga lor ko ñu fexee la yowet kon yooyu yëpp dañ ko war a xool bu baax a baax a baax peut-être nag ñiy def yi ay innocent la ñuy doon seen xalaat du suri li ñuy gis rek mooy l'instant T donc ñu leen gën a muus pas muus sax parce que li dof la ñu leen gën a dof vraiment teg leen ci yenn créneaux yi ba ñuy jéem a def yi nga xamante ne vraiment yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañu ci yàlla musal donc moom aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo teg lii mais est-ce que ndaw soosu ñu ko tegal est-ce que est-ce que moom ci boppam tegu leen dil est-ce que moom ci boppam naxu leen ne leen maa ngeeg nangamu Ousmane Sonko def na nangam fekk dara du ci dëgg fekk ne moom it am na ñeneen ñu am xel yu nekk ci ginnaawam yu koy doxloo ci maaye ni ñi nga xam ne ñoom ñoo koy liggéeyloo liggéey bi xaw ma ndax yéen a may comprendre bu baax a baax ñi fekkee dafa am ñoo xam ne ñoo def lii jublu si yàqu usmaan Sonko yàlla mi dara tëwut mënul yóbbu ndaw si ba ci ba fekkee ne egg nañ fu ñu war a yegg ndaw si wax leneen tuumaal leen wax leneen génne ay tur gars yi nañu seetaat suñu bopp vraiment Sénégal <laughs> sañu ma wax ne manqué na kilifa de sañu ma ko wax par respect sañu ma ko wax mais kilifa yi nañ jóg taxaw bu baax a baax nañ defaraat seen toogaay kilifa yi am ngeen mission bu rëy <laughs> am ngeen mission bu rëy a rëy am ngeen responsabilité bu rëy a rëy lenn rek moo leen mën a sauver ngeen subbi seen mbubbi kilifteef ak seen mbubbi njiit ak lépp lu ngeen mën a jiite ngeen teg ko ci suuf delloo sunu borom lenge yi wala nag ngeen jóg nag tey pare jihaat ci senegal xam ne senegal mu ngi yàqu Sénégal mu ngi tas. Euh, video Ousmane Sonko bi live bi dafa nekk urgence rek mais ci leneen laa doon bëgg a tey waxtaan tey muy yi nga xam ne moo nekk ci ci biir internet bi xaw ma aadamoo xaw ma aadamaa bon dañ ma ko yónnee ndeysaan ki ma ko yónnee dama gis tiitiri rek dama xool rek <laughs> dama ko waat téléphone sama ma ko yow yi ngay déglu yi ngay perd sa temps te ngaa jéem a xool leneen loo def ban njëriñ la lay amal ngay toog di déglu ñuy nettali ay yëfu nit ay yëf yu ñaaw di uññi ay sutura nit di la wax vie privée nit bàyyi lii amul njëriñ te nag gaa ñi euh, je pense que dina am ñu ci profito ah bëgg a clash Ousmane Sonko wala bugg ko toroxal wala bugg ko ñaawal gaa yi yeneen a may xool ma leen di xool ñun ñëpp kenn ku nekk am na loo xam ne tey buñ ko tegoon ci table bi waxuma sa koñ mais sa kër sax dootoo fa xaj li may wax ku ko mën a weddi na taxaw weddi kenn ku nekk ci ñun yaa ngeeg loo xamante ne tey bu ñu ko wone woon bu nekkutoon sutura yàlla waxuma sa koñ mais sa kër sax dootoo fa xaj bay génn ci mbedd bi gars nañu nañu dal franchement nañu seetaat suñu bopp yàlla nag daf ne jàmm bi dina nekk ci àdduna di ma mooy di ma mooy ma koy suturaal di ko suturaal mu ne ba mu dee ñun boroom xel yu gàtt yi ñu naan ah da koy atte ci li mooy yi mu ko doon may yóbbu ko safara mu ne ma koy suturaal di ko suturaal ba dugal ko àjjana kon euh, gars yi nañu xoolaat suñu bopp bu baax a baax a baax gars yi hmm? samay video nag xam naa ne du ngeen koy partagé samay vidéo du ngeen koy partagé parce que man duma leen wax lu leen neex duma leen wax loo xamante ne day fay faral seen waaye day faral diw wala diw mais gis nga Sénégal ku tiitul ku tiitul rek doo nit yéen a ngi daw ci feebaru coronavirus Covid bi di rey Covid bi du feebar bu garaaw Covid bi du feebar bu garaaw feebar bu gën a garaaw nekk Sénégal mooy feebaru xol Sénégal xol yi ñoo feebar rugu ñoo feebar. te ñi ko war a faj fajuñu ko billaahi bu ngeen xamoon sénégalais yi ñun li ñu nekkee ci ci internet bi ci réseaux sociaux mais dafa mel ni réseaux sociaux yi ñun dañ fa nekk di concours mbon concours ñàkk jom concours fenn concours ñun daal tey bu ñu fekkoon ne dañuy def tirage xool réseau sociaux yi ban dëkk ban réew ñoo jël ndam li ci lu bon ah ci loo xam ne inceste la dañ naan Sénégal moo gañe te li ma ci jaaxal ñun ñi koy partagé ñun dof yi di partagé yooyu ñun ñooy liggéeyal ñi nga xamante ne ñoom ñooy def jëf yi bon yooyu di ko wax ci internet bi di partagé seeni vidéo di seetaan seeni live pour ñu mën a am ay vues pour ñu ëlbatiku fay leen ci lu bon loolu ñuy def ñoom bu fekkoon ne képp ku fiy def vidéo di wax lu bon wala ngay weer nit wala ngay wax yëfu jàmbur wala ngay def lu bon kenn du la faale ñëpp a lay ignorer ñëpp dinañ ko ñëpp dinañ bàyyi li ñuy def dem uti beneen liggéey mais ay dof yu mel ni man ñooy jël ay vidéo di ko partage di seetaan ay live gars yi euh, Sénégal nañ seetaat suñu bopp bu baax a baax a baax a baax nañu seetaat suñu bopp bu baax a baax a baax Ousmane Sonko nag ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla dolli ko sutura te mbir mi yàlla na ko yàlla leeral bu fekkee ne ay pexe la yoo xam ne ay noon ñoo jóg pour teg ko ci kawam yàlla na yàlla dox digganteem ak loolu màbb ko na yàlla dox digganteem ak loolu màbb ñu ngi koy ñaanal loolu di ñaanal sénégalais bu nekk yàlla na la yàlla suturaal te képp koo xamante ne yaa ngi jóg pour toroxal nit pour def ko lu bon pour def ko lu ñaaw pour humilier ko yal na yàlla dal sa kaw yal na yàlla dal sa kaw loolu ñu ngi koy ñaan ñu ngi koy ñaan ci kattanu sunu borom képp koo xam ne yaa ngi jóg pour weer nit wili pande ko toroxal ko jéebaane ko yal na yàlla dal sa kaw ci kattanam bu fekkee ne nag tey euh, ki nga xam ne mooy borom borom salon bi bo déglu naa ko mu wax mais borom salon boobu sax du koo xam ne sax war nañ ko jox micro ku nite dégg li borom salon bi di wax yow sa bopp sax yow war na la da ngay xalaat xam ne Séné da ngay da nga naan Sénégal <laughs> mais yan genre nit ñoo fi nekk moom it ay wax yu incohérent wax gauche wax duraat dégg naa lii dégg naa lii. ba pare ne dama génnoon non ay Sénégal man ñi dem ba bi nit ñi dañu bëgg jaay ay def seen ay tele bëgg wane mais lan lañ demee di interroger koo xamante ne yow coow loo xam ne mu ne bëri nga dem di interroger di wax loo nit muy wax ay wax yoo xam ne tamit kenn xamul fu muy tàmbalee ak fu muy daanale ci biir waxam ji rek dugal na lu bari waaye yoon nag am nañ am nañ xew am nañ enquête bu ñu am na ñu war a def tey. parce que moom mi wax wax yooyu avance na ay propos yoo xamante ne vraiment yoon am nañ liggéey yoon am nañ un vrai liggéey donc euh, vraiment di am gàcce daal ñun dañoo am gàcce ñun dañoo am gàcce dëgg-dëgg boobu ba léegi ñu ngi wax mais dafa mel ni Sénégal gars yi dégguñu ñu Sénégal yi dégguñ mm-hmm. te dafa am lu am Sénégal ma foogoon ne dina yéen nit ñi tuuti gis nga ren li fi dem ci ay kilif kilifa li fi dee ci ay célébrité ak coono bi nga xam ne ñu ngi koy dund ci Sénégal lu bokkul ak Covid 19 bi man je pense que waroon na tax sénégalais bu nekk xoolaat boppam waroon na tax kilifa bu nekk ngóob ŋàbb micro dootul tal nelaw dootul tal naafi la. jóg di jiixaat di wax ak sénégalais yi di yedd sénégalais yi di delloo ci sénégalais ragal naa ne loolu moo nekkoon jihaat moo waroon nekk seen jihaat ñoom ñëpp ragal toll na foo xamante ne caaxaan caaxaan defaru ko de caaxaan defaru ko rek ngeen gis ñu dañ ñuy gis rek ñu yeewu solu ba naay sol costume defaru sol jean fekk ñu ngi lakk dëkk bi ñu ngi def loo xam ne baaxul ci senegal ñu ngi def loo xam ne kenn du ko nawee senegal kenn du ko respecté senegal bu njëkk ba boo génnee ci àdduna bi da ngay fier yàkkamti ñu ne la ñu xam ne yow sénégalais nga mais léegi doo bëgg a nekk sax sénégalais ndax sénégalais yi liñ nekkee ci internet bi liñ nekkee ci réseaux sociaux yi gars yi xoolaat suñu bopp bu baax a baax nit day am jom nit day am lu muy jombale boppam nit loo sikk sikk sikk loo mën a bàkkaar bàkkaar am na loo war a mun a jombale sa bopp waaruma leen nag ndax man gënuma leen waaye li ma leen di ñaan rek mooy gis nga suñu mbon googu nañ ko yemale suñu bopp te ñu bañ a bàyyi nit ñi uñ ñi seen sutura nit ñi jéem a weer gars yi ñu ngi jégalu ñu ngi yemale fii live bi ñu ngi jégalu bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah